Salam alaikum xaritu téléspectateurs yi yéen ñi nga sa ne yéen a émission bi nga xam mode et style euh, ci seen chaîne bi nga chaîne préférée Elvision Média Media la mooy chaîne bi nga xam ne moo mujjee juddu waaye mi ngi ay merveille euh, partout dans le monde tainak de dañoo one ba si Kambaaw euh, doxantu ñëw seet si ndaanaan li nga xam ne nee naa présenté ki day béy waaram ci li nga xam moy mooy bi Sculpture balma ci ko waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy milieu bi mu wax ma naka la gisee li nga xam ne mooy mode bi ma dem te ñëwaat. tey nag dañoo ñëwoon fii ci Sicap Mbao euh, seet si ndaanaan lu mag li ki nga xam ne kenn dootu ko présenté moom tamit à travers ci métier bi nga xam ne moom la nekk nekk un grand couturier moom lañ ñëwoon seet si waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy milieu bi Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax. mais Mor Ndiaye Alburax maa ngi lay siyaar bu wér a wér di la fay nuyoo donc di nuyu sa téléspectateurs yi sa téléspectatrices yi. Euh, di nuyu waa El Vision Média tamit di leen dalal fii ci kër gi Warriors Couture quoi di la béggee bu baax nag. voilà merci beaucoup fàllu léegi suñu première question bi ñu lay laaj moom mooy Warriors Couture lan mooy Warriors Couture. ah bon Warriors Couture nag bon tur bi moom ñu bëree bëri dañu ma koy laaj quoi mais histoire bu yàgg la ko donc bi ñu gënee nekk xale quoi donc dañu nekkoon. ay xale yoo xamante ne dañoo yaroo woon ci li ñuy wax hip hop quoi nga xamante ne mooy musique urbaine quoi nekkoon ci xam nga di kii woon tudd déglu sunu yenn grand yeeg affaire yooyu noonu mais bi ñuy tolloo nag di war a musique ak yooyu ñu créé woon benn groupe bu tudd benn groupe bu bu tuddoon Warriors Brand quoi donc tur bi foofu la jógee quoi ci Warriors Brand boobu la jógee Warriors Warriors xam nga tur bi nag topp ma Fallou Warriors Lufa Warriors affaire yooyu noonu ma dem nag boo war a tijji atelier nag xam nga may xalaat tur boo xamante ni dina raar dina sone lu neex si nopp nit ñi quoi te dina dina dina dina dina joxe dara quoi te xam ku xam Warriors li muy tekki tamit xam ni c'est important quoi ci nit bu ne si dundam quoi donc si laa ko tuddee loolu quoi mais histoire bu gudd la quoi mais dañ koy briefing rek noonu la demee quoi. d'accord jërëjëf Fallou ci li nga xam ne moom mooy euh, ci leeral bi waaye bëggoon nañu xam itam Fallou lan moo ko dugal ci métier tailleur. waaw mën naa wax ni héritage la quoi mën naa wax ni héritage la mën naa wax ni passion la parce que su ma nee héritage mooy sam da ñaw tailleur la woon da ñaw quoi da doon def donc bi bi may gën a nekk xale boobu machine dugg na suñu kër quoi donc machine nekkoon suñu kër nii ma ci fowantu affaire yooyu daan ñawantu xam nga yenn ñu tere ma ma dëgër bopp di def xam nga affaire boobu maa ngi jàng donc boobu nag la passion bi commencé dugg nag affaire ma commencé koo nga xamante ne dama ne automatiquement suma ma bàyyee jàng rek damay dem defi tailleur quoi donc tante naa ñaari année yoo xamante ne sama dernière année yi ma def ñaari année yëpp damay tante pour bàyyi jàng pour dem defi tailleur sama sama bañ quoi deuxième année bi ma tànte waat sama papa bañ troisième année bi nag si laa dugg mu nekkoon année 2004 fin 2004 su ma juumul donc année boobu si laa dugg ci tailleur quoi voilà. di fàttali yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan El Vision Média ñu ngi fii ci Sicap Mbao dañoo ñëwoon seet si ndaanaan lu mag li euh, comme ni ma ko waxee sànq kenn dootu ko présenté ci métier bi nga xam ne moom la nekk nekk un grand couturier alors Fallou li ma la laaj moom mooy Fallou nag nga gisee euh, mode sénégalaise léegi. waa mode sénégalaise moom ni li ma li ma ci gis mooy ah mi ngi dox mi ngi avancé gaa yaa ngi góorgóorlu donc par rapport ak les années yi nga xamante ne passé nañ ko donc am na évolution bu mag donc tailleur yi ñi ngi gën a gis seen bopp ci affaire bi affaire yi ngi gën a yaatu malgré que am na ay obstacle am na ay affaire yoo xamante ne mi ngi am yoo xamante ne bon du du loo xamante ne peut-être que sax volonté wu ñi si nekk la tailleur yi wala yooyu mais am na yoo xamante ne day jóge ci peut-être mën na jóge si état mën na jóge tamit ci système bi ni muy doxeek yooyu noonu dina dina ñëw di empêcher tailleur yeeg yooyu quoi donc voilà mais man personnellement maa ngi ciy gis sama bopp te sama morom yu bëri ñu ngi ciy gis seen seen bopp te waa te gëm naa ni mode bi mi ngi dox ci sama sama gis-gis quoi mi ngi dox mi ngi avancé ñi ngi def ay jéego ñi ngi koy yaatal di ko exporter fépp au niveau international quoi. voilà li ma lay laajaat mooy fàllu boo gisee ñaw boo xam ni jaarul yoon nga gis ko rek sa première nag nan lay doon. waa li may njëkk li may li may li may njëkk a xalaat rek mooy ki ko ñaw euh, xëy na peut-être jàngul jàngul ñaw ba mu mokk wala defeewu ko ni mu waree xam nga loolu dinaa ko gis mais ñaw bu jaarul yoon moom ku boo gis nga ki dul ñaw sax bu ko gisee ki nga xamante ne ñawul sax bu gisee ñaw bu jaarul yoon sax moom dina c'est-à-dire que dina ci am aperçu quoi xam ni lii am na benn erreur bu ci nekk quoi mais ñaw bu jaar yoon moom bu ko nit solee rek kaw ba suuf rek di nga xamante ne yow kii ñaw bi ko ki ko ñaw moom du du du ko quoi ndaanaan la loolu moom di nga ko xam quoi voilà mais depuis loolu itam dañoo gis euh, ñi nga xam ne euh, mën nañ leen tuddee ay apprentis dañuy ñëw ci benn place def euh, deux mois wala trois mois après ber seen daara loolu itam nag nga ko gisee. waaw loolu de ki koy def lay njëkk a xam nga dina dina dina dina ko sonal moom bu bare bari sa à li ëpp ci moom la moom moom ci moom lay mati moom ñu ko def parce que tey lépp looy def te mënuloo ko après da ngay sonal sa bopp mais di nga sonal tamit ñi ngay ñi ngay liggéeyal mais njëkk a parce que tey jii. jàng métier wam moo ko dafa neex quoi nga toog jël sa temps jàng sa métier xëy na nag métier mi li ñuy wax rek comme li may wax à chaque fois rek dafa nekk loo xam ne dafa vaste quoi dafa yaatu loo xamante ne da ngay mën maîtriser lépp parce que li ñuy wax euh, spécialisé wu dafa am ku nekk tey par exemple kii tailleur bi nii simple rek lay def am na ñoo xamante ne coupe rek la ñu xëy na loolu Sénégal la bariwut mais am na yenn réew yoo xamante ne da ngay gis koo xam ne coupe rek lay def xam nga kii design lay def kii broderie lay def euh, extra extra donc voilà mi ngi noonu mënoo dajal lépp mais xëy na li nga bëgg yow li nga bëgg li nga xam ne moom nga bëgg def nga mën ko maîtriser ko ba nga xamante ne képp koo ko defal mu kontaan donc toog jàng métier moom am solo la comme ñun niñ ko defeek yooyu xam nga toog jàng suñu métier ba nga xamante ne wóolu nañ ne li ñuy def mën nañ ko ñu ñu jàng ko mën ñu mokk ko quoi li may conseillé booy daal mooy ñuy toog ba xamante ne mën nañ ko quoi parce que jàng métier yàggul yor atelier moo gën a metti man par exemple bi ma yoree atelier ak léegi xam nga def na 11 ans xaw ma 10 ans mais li ma jàng métier bëriwul su ma xoolee par rapport ak li ma jàng métier bëriwul soo boolee lépp lépp man 15 ans laa defagum ci métier mi xaw ma 5 ans xaw ma laa jàng métier bi ma yoree at léegi kon jàng yàggul jàng métier si moom dafa yàggut mais nga nga nga mën ko ba nga xamante ne boo woowee nit ñu ñëw di am leen mën a téye quoi. d' accord léegi li ma bëggoon a xam mooy fàllu ci façon yi nga tudd sànq am ñoo xam ne dañoo mën coupe ñii mën broderie ñii mën leen est ce que fàllu moom dafa mën yëpp wala euh, des fois bu jaxlee di dem ci beneen tailleur pour mu dimbali ko ci loolu non man nag yàlla dimbali na ma parce que li ma la wax léegi dama xamoon ni loolu dina metti parce que tey par exemple bu fekkee comme li ma loolu doxul Sénégal comme mën benn affaire rek bëgg ko bëgg si bëgg si dundee wala bëgg si doxee wala bëgg si yor atelier day xaw a metti parce que cest à que Euh, milieu mode du Sénégal moo tolloogut foofu foo xamante ne dangay ngay ngay spécialisé wu si dara seulement rek bëgg si avancé quoi yenn ba bëgg si am yenn niveau yi moo tax bi ma xamee loolu dama jàng mi métier jaar naa si ñaari atelier mun naa wax dama dem si benn atelier bi jàng ba ma xamante ne am na lu ma desee ma demaat mottali ko feneen par exemple man damay ñëw simple damay coupe fii lépp luy coupe man maa koy def lépp luy design man maa koy def lépp luy finition man maa koy def comprendre nga parce que broderie moom mooy sama mën naa wax ni moom mooy sama sama spécialité à 70 pour cent mën naa ko waxee noonu à 70 pour cent mooy sama spécialité quoi moom laay gën a def broderie design affaire yooyu quoi mais n'empêche que damay def leneen li damay def yeneen yëpp quoi. d' accord jërëjëf di fàttaliwaat bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan euh, chaîne bii di El Média ñu ngi ñëw fii nag ci Sicap Mbao seet si ndaanaan lu mag li kooku nag mooy Fallou Galass Fallou Warrior Sculpture alors Fallou li ma lay laajaat moom mooy def nga fii 10 ans wala 11 ans est ce que Fallou faral di xuloog ay client wala du genre est ce que mos na ñëw di xuloog Fallou waa du ma wax ni mosuma koo def de waaye bokk na si li ma gën a ragal ko parce que lim lay yàqal moo ëpp mu lay defaral benn client bi nga xulool bul jàpp ni yow moom rek nga amal problème mais am nga problème ak waa këram am nga problème ak fi muy toog fi muy fréquenté te àq dafa dafa yéeme ko xëy na parfois sax du nekk àq parfois sikku sikku client bi lay doon ak yooyu quoi mais àq dafa xaw a garaaw quoi moo tax chaque jour damay bëgg di moral ak client bi xam nga bu jaree sax ma ma ma ma delluwaat à zéro pour defal ko li mu bëgg sax xam nga dama ko koy defal quoi bu fekkee par exemple liggéey bi am na erreur ak yooyu quoi loolu dama koy mais nag wax dëgg yàlla fàttalikoo ma fu ma dalee quoi mais damay damay éviter loolu mu may dal quoi parce que clients yi dañ leen war def comme roi dañ leen war a respecter leen war a leen war a tatagal ba nga xamante ne bu ñu ñëwee bu ñuy génne dañuy am sourire kontaan comprendre nga xam nga xam ni kii ni defal na ma li ma bëgg nga xamante ne client léeg-léeg da nga liggéeyal ba pare mu dem këram yëkkati téléphone am woo la paas la jëkkëram paas la frère xam nga ngeen waxtaan nga xam da dem ba nga xamante ne da ngay da ngay ñoom quoi loolu li koy waral mooy seddal xolu client yi quoi mais wax dëgg yàlla loolu du am de mais dama koy éviter bu baax a baax quoi. d'accord jërëjëf Fallou balay ba tey question bi nga xam ne moom laa lay laajaat moom mooy ci wàllu milieu bi ngeen nekk milieu bu xaw a métti la mën nañ wax loolu du genre est-ce que Fallou mës na ci am jafe-jafe ci milieu bi. Euh, bon jafe-jafe si ban si ban côté. jafe-jafe par exemple mystiquement wala du genre. non loolu mosuma ko am nag franchement pour dire vrai rek mosuma ko am quoi parce que yooyu du ma si du ci du ma la parce que loolu dafa nekk loo xamante ne dafa dafa xaw a lëndëm quoi nga boo ci bàyyi sa xel de toro rek léeg-léeg sax yow di nga ñàkk xarit di nga si ñàkk ku la bëgg di nga si ñàkk koo xamante ne ku la doon jëriñ la quoi moo tax yooyu du ma si bàyyi loolu nag mënul ñàkk parce que fépp la am léeg nga gis koo xamante ne da lay leer ba leer ni kii peut am na loo am na lu ko arrivé si si wàllum ay mystique ak yooyu mais man nag ba franchement parler yooyu dund ko mosuma arrivé même su ma ko dundoo ni ko wax quoi damay fexé ba nga xamante dina ko lijeenti sam bop mais nekkul lo xamante dama koy exposer ni ci média wala affaire yo non quoi franchement mais nak fepp la am amna fepp alors ñi koy def mom dañu gëmul seen bop wala num démé non wa mais dañu gëmul yalla aussi dañu gëmul ni yalla mom moy may yalla xam nga bo gëmé ni yalla mom moy may te gëm ni lepp lu la arrivé rek yalla sunu borom la quoi. man lima lima lima man da li nga xamante mom moy mom lay ça dire que mom moy sama mom lay jital moy ñaan waju comprendre ak sédal xolu client yi. gis nga bu loo fi am ñaan am ñaan di tàngal xolu client yi tamit aussi ay problème rek ngay dëkkee loo fi am ñaan am ñaan nit ñi di la ñaanal te say waajur ñaanal la aussi tamit doo doo doo pour man di nga di am ay gàllankoor ci àdduna loolu la mais man dama gëm li may liggéey gëm ni lépp lu am yàlla la su ma waree su ma waree par exemple egg benn étape bi yàlla la su ma waree dellu ginnaaw yàlla la su ma waree bàyyi ñaw yàlla la su ma si waree am ay problème yàlla la foofu rek laa ko teg quoi d'accord léegi yow lan ngay proposer comme solution par exemple pour nit ñi bàyyi loolu bien vrai que am na Sénégal gi ñu nekk nii léegi ban solution ngay proposer pour nit ñi bàyyi ko. waaw mais nit ku nekk rek nga doylu li li yàlla may sa morom nga xam ni lii la ko yàlla may kenn ku nekk li ko yàlla may comprendre nga. Bamba borom étoile couture dafa am lu ko yàlla may te may mën na am loolu mayu ma ko man tamit am na lu ma yàlla may te mayu ko ko boo ko foofu rek doo sonn unanimité kenn mënu koo am bu ñëpp tollale woon am ñu gedd seen cër ñëpp mënuñoo tollale. comprendre nga am na tailleur yoo xamante ne c'est-à-dire que niveau bi ñu am ci wàllu fortune awuma ko man tamit maa ngi sant yàlla am na ñoo xamante ne saa bu ñu sañoon egsi fi ma egsi loolu la ku nekk li nga am nga santee ko yàlla rek boo defee noonu doo teg bët sa moroom xam nga mooy loolu ci wàllu egsi boobu sax ci lay ci la poser question est-ce que Fallou mi ngi faral di ñawal ay dignitaires comme par exemple ay célébrité bu amee la ah bien sûr bien sûr day am day am parfois day am day am ñoo ay célébrité yoo xamante ne di nga leen ñawal dina am ay dignitaire comme ni nga ne c'est-à-dire que nit ñi dina leen xam sax di nga leen am na nga ñawal ñoo xamante ne ay célébrité dañ bëgguñu xëy na peut-être nit yëg ko wala yooyu noonu mu yem seen diggante affaire yooyu xamante ne peut-être di nga leen ñawal comme ay animateur animatrice affaire yooyu nga ñawal leen ñu defal le pub wala affaire wala ngeen def échange publicité affaire yooyu noonu day am quoi parfois day am waaw d'accord ki leneen li may laaj tamit moom mooy Fallou est-ce que ñaw yi nga xam ne moom ngay ñaw est-ce que mi ngi faral di jéggi frontière di dem feneen. waaw man nag pour dire vrai rek euh, li may ñawal li may ñawal ñu nekk étranger sax moo ëpp li may ñawal ñu nekk fii quoi pour dire vrai rek donc man euh, ñoo xamante ne par exemple ñii France la ñu nekk Espagne. Canada Suisse affaire yooyu noonu ma leen di ñawal di leen ko yónnee GP yeeg affaire yooyu noonu donc loolu si laay gën a liggéey moo boo tax boo xoolee daanaka du may toog damay nekk di livrer affaire yooyu noonu ay ñaw xam nga de li nga xamante ne fa ngay dugal say modèle ak yooyu ñu contacter la affaire yooyu noonu euh, commandé lay affaire dem nga dóoral leen yóbbu GP affaire yooyu noonu xam nga voilà parce que affaire bi léegi dafa ubbeeku quoi léegi àdduna bi la ñuy wax euh, mondialisation quoi si benn planète la ñu nekk ñun ñëpp ñawee fii yóbbu fële day day kii quoi day yomb quoi te ñoom chaque jour dañuy xool li xew fii tànn parce que ñoom li ñuy bëgg yëpp Sénégal la am parce que tendance su ñaw dëgg dëgg dëgg yoom yi ñuy sol Sénégal rek la am amuñu mënuñu ko ñëwee beneen réew mënuñu ko ñëwee fi ñu nekk tamit parce que yi ñuy li nga xamante ne mooy xew nii si mode bi amul furul Sénégal quoi moo tax après dañuy contacter styliste yi nekk fii nii pour ñu ñawal leen envoyé leen ko quoi. ci wàllu xeeti ñaw yooyu sax ci la ñuy ñëw léegi dañoo euh, gis depuis bu ñu juddoo ba léegi tey baas même façon la ñuy gis

léegi ñu ngi koy ñaw ba léegi mais gis nga niñ ko changé dañ ko moderniser ba nga xamante ne yow boo ko xoolee da nga naan sax lii nan nan la ko gars yi créé quoi comprendre nga ba ci xaftaan yeeg loolu yëpp comprendre nga grand mbubb yi yu góor yi boo ñëwee si jigéen ñi tamit noonu euh, ndoket yi gars yi daan ñaw léegi ndoket donc mu ngi am ba léegi moom mooy taay maam rek booy xool moom la ñu modifié def ko taay maam donc def si ay affaire ba nga xamante ni yow boo ko gisee da nga naan lii xam nga c'est tout moderne quoi dafa moderne carrément quoi taille basse aussi noonu daanaka chaque année di nga gis taille basse yoo xamante ni musoo ko gis fenn styliste yi di ko créer di ko proposer seen clients yi quoi mode bi moom franchement bu fekkee côté création moom non côté boobu moom mi ngi dox quoi mi ngi dox bu baax sax. ci wàllu création boobu tamit la ñuy des est-ce ngi fara di créer benn affaire xam ne bu génnee da koy gis ci beneen moroomu tailleur. Euh, comprendre ma question bi. ci wàllu création bi est-ce que Fallou mi ngi faral di créer loo xam ne ni bu génnee par exemple da ko gis ci beneen moroomu tayeram ok maanaam li nga bëgg a wax mooy est-ce que maa ngi créer loo xamante ne su ma créer dinaa gis keneen def ko. non bien sûr parce que tamit xam nga li ñuy wax rek fii munoo créer benn affaire ba pare ne kenn du ko def wala affaire yooyu parce que man damay ñaw loo xamante ne ni da ko créer loo xamante ne da ngay gis création wu jàmbur nit même yow soo ko jëlu sax. client bi mën na ñëw ni la yow man modèle sàngam laa bëgg modèle lu diw laa bëgg nga ñawal ma ko nga jël model boobu noonu recopier ko teg teg ñawal ko ko comprendre nga ni nga koy defee nag noonu la noonu lay demee ak ak ñeneen ñi tamit xam nga. ñeneen est yéen a ngi faral di protéger tamit seen i création. non loolu xam nga waxoon naa ko ci benn émission bu ma invité woon dama ne. loolu mënagul nekk fii nii actuellement. ak mode sénégalais ni mu ni cest à que ni mu bindoo ak ni ñu ko tëggee. munoo fee mënoo mënoo jël xam nga bokkul ak exemple tey par exemple bu ma la jox exemple. Euh, artiste bi nga xamante ne dafa créer benn bàkk wala artiste bi nga xamante ne dafa créer benn way way boobu noonu moom moo ko créer mën na dem BSDA wala SODAV wala yooyu noonu xam nga protéger ko ba nga xamante ne keneen ku ko jël mooy loolu mais mode bi mu loolu mënul nekk parce que tey par exemple boo créer benn modèle pour nit ñi bëgg ko moo tax nit ñi bu ñu ko bëggee nag am nañu choix wu dem feneen ñawlu ko fa am na ñu wu dem ñëw si yow tamit ñawlu ko moo tax ma ne loolu day metti fii da ngay jël modèle lu diw ñaw kii day jël modèle lu Modou Gueye héritage ki jël modelu euh, xam nga bamb partenaire ñaw wala affaire yooyu noonu xam nga wala étoile couture ñaw xam nga c'est-à-dire que munoo munoo munoo munoo téye benn modèle rek ne da nga koy protéger pour yow keneen du ko ñaw quoi marque nag mën na nekk mën nga jël mën nga créer sa propre marque protéger ko ba nga xamante ne keneen du utiliser méthode bi nga bi ngay dérouler marque bi wala turu marque bi loolu moom mën na nekk quoi mais en tant que modèle ci boppam mënul nekk loo xamante ne dañ ci war a xool di def xam nga tur bi noonu loolu loolu lay joxe waaw kon modèle mënoo ko protéger loolu dangay dangay da ngay créer rek teg quoi après mooy loolu. d'accord fi may ñëwaat teg yow moom mooy euh, ci wàllu ñaw yi ñawal góor ak ñawal jigéen ban moo ci gën a yomb. non ñaari po métti parce que ça ça dépend ci ki koy ñaw non ça dépend ci ki ñaw bi ak ki koy ñaw parce que léeg-léeg da ngay gis koo xamante ne dana naan ñaw ñaw jigéen moo gën a yomb am na ñoo xamante ne ñaw góor mënuñu ko mënuñu ñaw caay ceinture munu mënuñu ñaw xaftaan mënuñu ñaw turki njaareem mënuñu ñaw garaam boobu comprendre nga mënuñu ñaw yooyu mais am na ñoo xamante ne ñu si ñaw góor mais ñaw jigéen lañ foor am na ñoo xamante ne ñaw jigéen bu ñu ko téyelee da xam ni macha allah mais fooree wuñ ci côté beneen bi quoi loolu day am mais man yàlla def na lépp laay ñaw comme ni nga ko gisee nii dañuy ñaw ñaw yoo xamante ne ay ñaw góor la dañuy ñaw ñaw jigéen dañuy def garniture dañuy def broderie dañuy def lépp peinture lépp la ñuy def comprendre nga mooy li ma la expliqué léegi jamono juñ toll nii yi moo moo xew léegi man façon ñaw moo xew. waaw ñaw yi xew mënoo ko qualifier ci benn modèle da nga mënoo ni benn ñaw bi moo xew quoi mais ñaw yi xew bari na comme par exemple actuellement nii moom euh, gars yi dañu xaw a reculer tuuti ci par rapport ak garniture yi quoi boo xoolee tendance bi xew léegi lépp ci coupe la. taille basse yi yaa ngi gis taille basse yi gis taille maam donc moo gën a nekk devant quoi taille basse taille maam affaire yooyu noonu mais boo gisee li instant bi moom. coupe mom, coupe mom, instant yi mo nek au devant quoi mom mo nek ci kanam quoi donc coupe bu rafet bo xolé nit ñi lool mo nek tendance mom moy dox quoi tay basse yi tay mam yi mais nami day changer rek chaque jour day varier léeg-léeg lii ñëw nekk tendance dox léeg-léeg lii ñëw dox quoi. donc mode moom taxawul fenn li ñuy terminer moom mooy ci wàllu xale yu yu jigéen ñi des fois nga nekk euh, fenn comme tailleur bi nga euh, yu ñi est-ce que mi ngi faral di jànkuwanteel problème yooyu itam. waaw mais tamit loolu mom. loolu moom euh, euh, comme li ma ci mën a expliquer mooy loolu moom du du question sa nekk tailleur ñaawkat wala affaire na xam nga tamit xale jigéen tamit lu baax lañ bëgg xam nga dañoo bëgg ku baax ku civilisé ku set koo xamante ne ñoom da leen di peut-être ñoom loolu moo leen di intéressé si si góor wala affaire yooyu noonu loolu nag bu amee parfois nag di nga gis ay tentation xam nga mais nag ku nekk ak li ko tax a jug quoi comprendre nga am na ñoo xamante ne dañuy ñëw seulement pour xaritoog yow am na ñoo xam ne peut-être leneen moo leen yëkkati mais yow sa bopp boo yow yaay am benn mentalité de dépassement am yoo xamante ne da nga siy nekk am nooy doxee que ku ney ñëw parce que yaa woote ni da def lii ak lii nit ñi di ñëw lekk kii ñëw nag yow bul xam quoi mais yi ngay wax noonu moom du ñàkk mais si domaine yëpp la am quoi si tailleur bi artiste bi waykat bi chant lépp quoi am na si côté yëpp domaine yëpp quoi voilà. Fallou lan ngay tàggoo. li may tàggoo mooy euh, di leen nuyu di leen jaajëfal ci. ñëw gi ngeen ñëw fii fekk si ma fii ci bërëb bi maa ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax di leen siyaar bu wér a di nuyu El donc bu El Vision di di nuyu tamit euh, sama ñi nga xamante ne ñoom laay ñoom laay liggéeyal quoi ñoo nekk ci atelier bi maa ngi leen di remercier bu baax a baax di nuyu tamit yi quoi fépp fu ñu mën a ci Sénégal maa ngi leen di nuyu ci partout Dakar fu ñu mën di nekk maa leen di nuyu di nuyu tamit ñi nekk ci diaspora bu baax a baax a di leen wax ni daal fàllu mi ngi nii seen fàllu la lépp lu ngeen bëgg ci lépp loo xamante ne tendance la mode la nañ ko doon defee rek na woon foo woon rek maa ngi ci maa ngi ci kawam quoi di leen saako di sàqu si yéen ñaan di tamit sàqu ngeen ñaanal moom bu baax a baax a baax ndaxte yoon bi moom li ñuy def tuuti la c'est-à-dire yoon bi sax fekkoon 100 la moom dama naan defaguñu deux yi sax quoi donc li des moo ëpp fuuf fuuf li ñuy weesu quoi kon nañu ñaanal bu baax a baax loolu laay wax di leen bu baax a baax d'accord jërëjëf Fallou ñi ngi jaajëfal bu baax itam yéen ñi nga xam ne yéenay téléspectateurs yi téléspectatrices yi yéen ñi doon seetaan Elvision Média ñu ñëwoon fii ci Sicap Mbao euh, doon seet si ndaanaan lu mag li kooku nag moom mooy Fallou Warriors Couture mi ngi nekkee fii ci Sicap Mbao def ñaw yu baax ñaw yoo xam ne ni tubaarkàlla foo ko solo rek ñëpp daal di apprécier ndax dafa mën li muy def ñi jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy Elage mi nga xam ne moo jàpp ci wàllu technique bi ak Bamba assistant ñu leen jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup